téeméer ñaar fukk ak ñetteeli yéebaane yi su ñëwee si wàllum jàngoro Covid 19 bi si biir réew mi bu bunta bi yore wàllum wér-gu-yaram di def feeñal na ne yokkute am na si ni am feebar bi ak ñi si ñàkk seen bakkan report yi fukk ak juróom-ñetti fan si weeri ogos bi nga xam ne génne neen ko niki tey wane na ne si ñetti téeméer juróom-ñeneenti test yi nga xam ne def neen ko téeméer fukk ak ñett bi yëpp wane neen ne am nen feebar bi leen nag waral na ñu am feebar téeméer ak benn buñ ko xaymee nag si téeméer bu nekk juróom fukk ak juróom-ñaar bi yépp ay góor leen si ñu am feebar bi ba tey itam si ñu am feebar bi juróom benn fukk ak ñetta bi si téeméer bu nekk ñoom ñëpp seen at agut lii di ñeneent fukki at ñu bari si ñi wax ne ne wanewuñ benn mandarga buy wane ne am neen feebar bi mu waral nag ñu ngi leen bàyyee ngum seen kër yi ba balaa gaay di amee li nga xam ne mooy symptômes ñeneenti nit ñoom ñàkk neen seen bakken si feebar bi le mu waral ñiy ñàkk seen bakken léegi mu toll si juróom ñetta fukk ak benn ñoom yëpp nag bu ñu leen doon tes fekk na gaañu neen ba pare amul kenn koo xam ne nag wéree na si jàngoro bi buñ sukkandekoo si xibaar bi nga xam ne leen génnee mu waral ñi fa wéree ngum mu toll ba tey si ñeneenti téeméer ak fanweer ak juróom ba tey nag wax ne ne juróom-ñaari gox yu si réew mi yëpp am neen feebari coronavirus bi la waaye nag place yi di Western One ak Two ñoo gën a bari le kees waaye Banjul moo si raw ngir lu toll si téeméer juróom-benn fukk ak ñeneenti nit am leen feebar bi réew mi si jamono bi nag ñaar téeméer juróom-ñeneent fukk ak benn nit ñoom leen teg benn place maanaam quarantine junne juróom téeméer juróom fukk ak ñoo amee jàngoro bi si jamono bi ñaari téeméer ak benn ñoom nag seen biir leerut parce que seen si wanewut ne am neen wala amuñ ba tey bu ñoo xayma si téeméer bu nekk ñetta tomb ñeneent ñoo ñekkat yi ñàkk seen bakken si feebar bile Lamine Fall Paradise TV News